ki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll dellusiwaat na ci seen émission bii di Touba ma yónni ñu di ko amal samedi bu jot ngeen di ñu bàyyi xel ci réseaux sociaux yi waaye di ñu bàyyi xel ci internet bi di ñu bàyyi xel ci seen rajo Assalaamy FM 99.0 mbokk yi desiwaat naa ci barab boo xam ne Touba ma fi yónni woon muy première neen bi ma Touba njëkk a yónni fi ma yónni woon la ma Touba yónniwaat tey jii ci ñaar fukkeelu émission ak juróom yemoo ak samedi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre bokki barab bi mooy tëli bi nga xam ne moo jógee jumaa ja jëm marché Ocass ñëw ci intersection bi nga xam ne moo jëm kër soxna May bintu Seexul Xadiim ak kër soxna Momi bokk yi foofu laa taxawoon première émission bi damay àndaat ak sama caméraman Modou Mamoun Mbaw mu wanoon leen li nga xam ne moom lañ fi fekkoon ba taxoon yoon yónni ñu fii su ko defee danañ mën a jàngat ak li nga xam ne moom lañ fekkaat kon ñu bàyyee ak sëñ Modou Mamoun Mbaw mu wan leen lan laa fekkoon ci yónneen bu njëkk bi nga xam ne Touba yónni woon nañu ko fi jërëjëf mbokk yi ñoo ko gisandoo loolu la ma fi Touba yónni woon tey jii nag dama fee yónniwaat ngir ku wane loo xam ne ay ñaawteef la ak yàqu-yàqu boo demee ba am yaakaar ci nit di ko defeer wan ngaa wane la nga xam ne moom la ñuy defar mbokk yi maa ngi taxawaat ci tëli bi fii de am na jafe-jafe ay at lu man ñaari at loo xamante ne bi napp bi dafa doon génn loolu lañ wax tëli bi dafa yàqu woon loolu lañ wax waaye tey jii fekk naa fi sinwaa yi fekk fi ñu taxaw di ko defar nag nga xamante ne bii damay bàyyi sama caméraman mu wan leen li nga xam ne moom lañ fi fekk ñu di ko defar tu tuuwanaa bi nga xam ne moo jiitu ak ni nga xam ne ni lañ gase suusu dees yi ba jot bët ba gis ndox ma di ko dindi ba mu set ñu jiital ci tuuwanaa soog a fab latrik teg ko ci wala boog fab godron teg ko ci ba mu nekk tëli boo xam ne bu normal lay doon am nañ ci yaakaar ñi ngi defar kon képp koo xam ne da ngay wane luñ defarut bu ñuy defar wan ngaa wane lañ defar kon ñoo ngi jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo yor wàllu tëli bi ca doon ko entretien war a ñëw nag fekk mu yàqu ñu di ko defaraat muy tëli boo xam ne nag benn tëli ëpp ko njariñ ci Touba ndax ci jumaa ji la mal ca waxoon naa leen ne Touba day jàmbat ana yoonam yi nga xam ne moo jëm si ci fi ko gën a ñor muy jumaa ji yoon yëpp a yàqu woon waaye tey ji wan nañ ñu ko muy tëli bi nga xam ne moo dago ak tëli alaaji Mouhamadou Lamine Baara ña ngi koy defar ba mu waat ca tëli bu mag ba kon yaakaar naa ne rafet na njort ci ne ñoom bala ñoo bàyyi li nekkoon fii jafe dana dañ ba buñ àggatee ci màggal àgg ci yeneen événement rawatina nag laylatul xadar ji ñëw danañ fekk na yoon yi ñu man fee jaar muy tëli boo xam ne kër sëñ Abdou Lahat moo nekk ni kër sëñ Fallou moo nekk ni kër sëñ Abdou Samatum sëñ Touba moo nekk ne kër sëñ Modou Mamoun kër El Hadj Bara muy ay kër yoo xam ne yëpp njabootu sëñ Tuubaa rek ñoo fi nekk kon tëli la boo xam ne boo am njariñ la rawatina nag ñi nga xam ne ñooy xëy ci marché Ocass di fa jaar kon tëli bi yaakaar naa ne bu yàqoo rek dañ ko war a defar alhamdulilahi rabbil alamin nag ginnaaw wanoon nañ leen ay yàqu-yàqu tey ji ci gaaw bi yemoo ak 23 décembre ñu wanaat leen ak defar kon sant yàlla la seen mbokk taalibe Fallou Gala Sill moo nekkoon ci micro bi ci wàllu machine bi El Hadj Modou Mamoun Ndiaw Mbaw ci wàllu eh, montage bi eh, Serigne Habib ñu leen di joxaat rendez-vous ci beneen épisode wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.